alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu atamaani aklamaani ala sayyidil xalqi ajmain wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain amma baad asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëwaat ci ci podcast yi tey incha allah ñu tàmbali benn bu am solo te mooy lu aju ci addu'a te mooy ñaan balaa ñuy dugg nag ci yi nga xam ne mooy ñaan yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka noonu tamit alquran ñoom moom nañ jàngale day baax ñu njëkkee ci li nga xam ne mooy njëriñ yi nga xam ne ne moom la ñaan am ci lislaam ñeneen bi ci gën a màgg nag bi ci gën a feeñ ci alquran mooy yeneen mooy suñu borom tabaraka wa fu muy waxee ni ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma ma ma nangul leen donc loolu day wane ne wax la boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko wax boo xam ne ne doy na sëkk ci ngëneelu ñaan ne képp koo xam ne ne yaa ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala non seulement ñaan bi ngay ñaan ndigal la boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo la ko jox comme ndigal waaye tamit moo la assuré na dina la ko dina la ko nangul naka la koy nangoo nu mu koy nangoo mooy ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadiis bi ne képp koo xam ne ne yaa ngi ñaan te ñaan bi ngay ñaan bàkkaar amu ci maanaam nga naan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nga ma defal lii te loolu day tax nga dugg ci bàkkaar wala nga mu nekk loo xam ne loolu ci boppam bàkkaar la te tamit nekkul loo xam ne tamit day dog mbokk bu boobaa bu muccee ci ñaar yi suñu borom tabaraka wa taala dina ko nangul dina ko jox ci ñaana boobu mu ñaan ñetti mbir yi soit da koy jox li nga xam ne moom la ko ñaan wala xaaral ko ko maanaam mu xaarandil ko ko ba àllaaxira mu nangul ko ko foofu defal ko ko ci àllaaxira wala mu changel ko ko ak leneen loo xam ne moo gën li nga xam ne moom la moom la ñaan defal ko ko fii nii ci àdduna kon ñett yooyu mooy génnuwaay yi nga xam ne ne mooy am ci ñaan soit li nga ñaan ci boppam dañ la koy dañ la jox ci saa si fii ci àdduna wala ñu dencal la ko ba àllaaxira wala ñu changel la ko ci anam bi nga xam ne moo gën ci yow lan moo tax parce que surtout dernier partie bi parce que nit ki mën na ñaan loo xam ne ne baaxul ci moom gënul ci moom comme yàlla moom moo ko gën a xam nit ki xamul bu boobaa suñu borom tabaaraka wa taala da koy soppil mbir boobu ñaan ak leneen loo xam ne moom la waroon ñaan normalement mais ñàkk xam bi mu ñàkk xam ak ñàkk euh, xam-xamam lu mu néewee tax ba mu ñaan leneen tax ba suñu borom tabaaraka wa taala dab dab dabaatal mbir boobu indil ko ak lu gën li ma xam ne ne moom la moom la waroon ñaan moo tax ci xadis boobu nga gis saxaaba yi daal di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu fekkee nag dañoo bëril mu leen boo leen bërilee ñaan suñu borom tabaaraka wa taala tamit bëril li nga xam ne moom la leen di moom la leen di may ba am na xadis boo xam ne sax yonent bi alayhi salaatu wa dafa wax na innahu ca dëgg dëgg dëgg man lam yes alillah man képp koo xam da ngaa dañ ci maanaam da dañ ci ñaan yàlla maanaam doo ñaan yàlla yaadabu aley suñu borom tabaraka wa taala dina jël meram sànju ko ci kawam moo tax nga gis imam ibnul xayim daal di wax rahimahullah ne loolu day nekk tegtal boo xam ne ne bu leer buy wane ne te xadis boobu xadis la boo xam xadis Seydina Abu Hurayra la naka noonu tamit imam Tirmizi yi riwaaye na ko euh, imam euh, Ibnul Xayim rahimahullah daal di wax ne lool day wane ne xadis la boo xam ne ne xadis bi day wane ne ne euh, ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala ak toppam loolu ci boppam mu ngi amee wala ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala mu ngi amee ci lan mu ngi amee ci ñaan ko naka noonu tamit ak di ko topp maanaam di dox ci ndigalu yàlla yi di julli di woor et cetera naka loon tamit di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala moo tax nga gis ñu lay digal saa yoo defee benn jaamu yàlla boobu ba pare nga def lan nga ñaan ci suñu borom tabaaraka wa la lan mooy dalil bi dalil bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi nga xam ne moom la nettalee ñett ñi nga xam ne ne ñoo duggoon ci grotte bi ba ñu duggee woon ci grotte bi dal di daal di noppalu jékki-jékki taw bu metti am ba benn xeer déplacé wu tëj buntu grotte bi ba ñu jaaxlee ñu daal di wax ne léegi nag kenn ku nekk xool benn jëf bu sell boo xam ne mës na ko defal suñu borom tabaaraka wa taala mu ñaan suñu borom tabaaraka wa taala ngir mu teggil ñu mbir bi kenn ki ba mu ñaanee li muy ñaan fàttaliku benn jëf bu baax mu def ñaan ci tawassul ci suñu borom tabaaraka wa taala ngir mu wëññil leen ñàkkare bi suñu borom tabaaraka wa taala nangul ko nangul leen benn partie ci xeer bi daal di puus waaye doylu woon pour ñoom ñu génn. keneen ñaan keneen ñaan ba ñetteel bi ba mu ñaanee la xeer bi dañ carrément ñu génn loolu day war a ne nit ki jaamu yàlla yi nga xam ne moom lay jaamu yàlla mën na cee sukkandikoo ngir ñaan suñu borom tabaaraka wa taala donc loolu day war a ne sunna la te lu mën a te lu mën a nekk la te lu ñu lu ñu digle la loolu moo tax nga gis yonent bi alayhi salaatu salaam ci ay ñaan yu bëri wala ci ay julli yu bëri nga gis saa yu jullee pare di digle ngir ñuy ñaan naka noonu tamit nga gis ci yenn bërëb yi nga koy gis muy ñaan et cetera et cetera et cetera donc loolu day war a ne jullit bi arm bi nga xam ne ne moom la war a gànnaayoo ci mboolem mbir yi moom mooy lan moom mooy ñaan mi nga xam ne moom la war a war a ñaan am na benn xalis boo xam ne day wax al al adduwaawu huwal ibaada ñaan ci boppam moom mooy jëmmi jaamu yàlla ndax boo jëlee li nga xam ne mooy julli boo xoolee li ci nekk yëpp suñu borom tabaaraka wa taala boo xoolee julli mu ko tëggee da ngay gis ne sàbbaal ak ñaan suñu borom tabaaraka taala mooy li ci gën a not après li nga xam ne moom mooy mouvement yi nga xam ne moom moo ci am kon loolu dangay gis ne ne suñu borom tabaaraka taala ci boppam moo la forcé sax nga ñaan ko ci biir julli moo comme mooy mel ni ngay wax ihdina siraatal mustaqim yow suñu borom tabaaraka taala gindi ma ci yoon bu baax bi moo tax nga gis ci xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam xadis xudsi bu mu riwaaye di wax ne suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne yaa ibaadi kullukum daalum illa ma hadaytahu ila xiril xadis mu ne suñu borom tabaraka dafa wax ne yow sama jaam yéen ñëpp da ngeen réer lu dul koo xam ne ne man maa ko gindi yéen ñëpp tamit da nekk ñoo xam ne ne daal ciy teg ne sàkku leen ci man ma gindi leen bu boobaa dinaa leen gindi naka noonu tamit mu teg ci ne yéen ñëpp da ngeen rafle lu dul koo xam ne man maa ko leele kon ñaan leen ma ma leele leen bu boobaa dinaa leen leele naka noonu tamit la wax ne yéen sama jaam yéen ñëpp dangeen rafle kon ñaan leen man ma solal leen bu boobaa dinaa leen solal yére naka noonu tamit la wax ne naka képp kenn ci yéen ci nit ñi ci jinne yi ñëpp loo xam ne dama leen bind bu fekkoon ñoom ñëpp dañoo taxaw ci benn taxawaay ñoom ñëpp ñu daal may ñaanandoo ñoom ñëpp ma joxandoo leen lépp loo xam ne loolu nañ ñaan te kenn ku nekk li nga ñaan ak sa moroom lu mu ñaan bokkul bu boobaa du wàññi dara ci sama li nga xam ne moo nekk ci man te mooy magasin wu suñu borom tabaaraka wa taala lu dul day mel ne nga demoon fekk géej jël benn puso dugal dugal ko ci biir géej bi génnee ko waat noonu rek lay mel par rapport ak li nga xam ne moom la moom la moo nekk ci man naka noonu tamit loolu danga nga ciy déggee ne suñu borom tabaaraka wa taala dafa namm ci jaami ngir ñu koy ñaan donc loolu moo tax nga gis ne jullit problème bu ko bu ko mënti gaaral ci àdduna ak mbir bu ko mënti gaaral ci àdduna lenn la yàlla soxla li tax yàlla teg la nattu yooyu li tax yàlla teg la situation yooyu lenn la bëgg nga delluwaat ci moom mooy nga tuub delluwaat ci moom tourner xool jëme ci moom daal di ñaan suñu borom tabaraka wa taala ngir mu teggil la natt yi ngir mu teggil la natt boobu wala rek wala nga boo jaaxlee am benn situation boo xam ne ne euh, xamatoo naka la war a demee nga dellu suñu borom ñaan ko wala benn mbir boo xam ne am nga ci yaakaar lool nga ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu defal la ko donc lépp loo xam ne da nga ciy lépp loo xam ne am nga ci yaakaar say mbir yu am solo ci sax comme ni ko waxee suñ euh, yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba ci sax xorom booy def sa biir cin nan ma ko ñaan kon ku dem bay wax ne xorom ci boppam del ma ko ñaan kon leneen taxul ñuy wax kon lépp loo xam ne ne euh, dafa gi lu dul daal loo xam ne yoon saa sa moom la wax ne loolu laal bàkkaar loo xam ne ne euh, lu bon la wala loo xam ne day dog mokk lu dul loolu ñaan ko suñu borom tabaaraka wa taala te comme yeneen bi alayhi salaatu wa salaam lu wax ne da am kuulute ne suñu borom tabaaraka wa taala dina la nangul sa ñaan kon loolu nañu ubbee tey introduction lu aju ci ñaan incha ci yeneen jotaay dinañ ci gis li nga xam ne mooy teggin yi nga xam ne moom nañu war a def bu ñuy ñaan naka noonu tamit. yan waxtu lañ war a nañ gën a sopp ci euh, am ci yaakaar ne dañ ciy nangu ñaan naka noonu tamit ñu doog a dugg nag ci ñaan yi nga xam ne ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka noonu tamit alquran da koo jàngale in uridu ilal islaaha mastataxte wa ma tawfiqee illa billah subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin